que la misère se bat mbënn mi bëtt bëtt sénégalais yi jooy xool leen ni ñu dunde si biir xool yi tooy ndoxum ren fekk fi ndoxum daaw ndoxum taaw nangu seeni kër ñu gaaw wallu ji leen wala ñu sooy mbënn maa ngi ci kër yi def tiis ci xool yi bur yàllay nattu jaaw nañu nangu ndagal euh, alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di julli si yéen ci yàlla Muhammad di sant suñuy waajur Euh, di wax ni euh, lii ñuy dundi nii euh, dogalu suñu borom la waaye ñun suñu loxo ci ne te it jafe-jafe yu métti la ci population bi jafe-jafe jooju nag li ko indi mooy ñi fi ne jiite te war a yor gox bi defuñu li ñu war a def amul benn autorité boo xam ne taxaw na pour yëkkati loxoom def jéego pour lijjanti problème bi C'est ce rek dem en ce moment nous avons fini wax ni Le ñu ministre de l'intérieur de waron ba waxtu donc bu fi de voir xol rek dem lolu réglé wol problème population bi nit nit nit ci ay difficulté euh, euh, population bi nak tay euh, ñu ngi président ñu ngi lay ñaan nga jël responsabilité ndax ñi nga in bàyyi Kër Massar ñu jiite Kër Massar représenté la jéewuñu seen rôle du ci kenn c'est pas un ministre c'est pas le maire ce n'est pas non plus par exemple les autres autorités qui sont là administratives xam nañ li ñuy wax dañuy ñëw taxaw rek donc ce n'est que way la rek way moo tax ñu lay ñaan nga dimbali doomi aadama yi nga jóg ci unité 14 euh, unité 15 jóg ci Amdalaay et alentour quartier s. ñi nga xam ne tey ñu ngi ci biir ndox mi tey ñii ñaa ngi ñu ngi kii kër imam bi dafa noyé maanaam dafa dem ba ndox rek moo fa ne ba mu génne njabootam jàkk ci julleetuñ fa donc ni ay nit a ngi nii feebar seen kër nekk ci biir ndox waaw sonn nañu on n'a pas les moyens amuñu moyens def ko buñ ci jógul nag ñun duñu xuloo duñu xeex waaye yaakaar naa ñu mat gu toll na kër yëpp bu ñu dajaloo daañu dajaloo dañuy cotiser ñu def li ñuy def te bu boobaa presse yëpp daañu xam ñun jàppale wun ñun ñun ñoo jàppale suñu bopp donc ñu ngi nuyu ñëpp di la siyaar di la eh, ñaan nga am pas-pas ci li ñu wax président ba ku ne am yërmande ci sa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 suñuy gox ñu daal di tumuranke askan wu ñun ci ndox bu sama kër gi daa del sama bagage yëpp dañoo fees tombé sama borom kër feebar moom itam ci biir ndox mi lañ ko jukkee bi nga duggee ci biir gisoon nga armoire bi ak lal bi ci biir ba dara fi du gis nga ko yëpp a ngi ci biir depuis 2012 ba tey ñu ngi naan dina leen defal yi daañu leen defal yi te kenn gisu fi daara nag ñun sonn nañu daayi nañu dimbale ñu ngir yàlla ak yonent bi gouvernement bi nañu gestu ngir yàlla Macky Sall ñu ngi koy woo mu ñëw jàppale ñu moog jabaram ñoo ngi koy ñoo ngi koy woo guddeeg bëccëg nañu ñëw jàppale ci suñu quartier bi suñu quartier bi dafa tooy xep xep xep suñu bagage yëpp yàqu na man mii amatuma bagage bu baax di sama lal baa ngi ci biir armoire mu ci biir ndox mi lal baa ngi foofu armoire baa ngi foofu yow gis nga ko sa bopp yow mii nga ba ci biir ba gis la sama borom kër feebar ci biir ndox mi lañ ko jukkee xam nga ne loolu itam neexul nan nu jàppale ngir yàlla ak yonent bi ñoo ngi koy ñaan bu baax a baax Macky Sall ñoo ngi lay woo guddeeg bëccëg ñëwal nga jàppale ñu yaag sa jabar yaag sa yaag sa délégation yëpp ñoo ngi lay ñaan nga ñëw jàppale ñu si ndox bii ngir yàlla ak yonent bi at bu jot ngeen dig ñu at bu jot ngeen dig ñu gëstu leen ñu na ngir yàlla ñun noo ngi bëgg dee ñoo ngi bëgg a dee dimbali ñu ngir yàlla ak yonent bi askan gu